لا لا لا لا لا لا لا di sant seen kilifa yi leen yónni ñu xamal leen leen mbir mi egsi na egsi na egsi na fi ñu ko soxlaa nag fi ñu ko soxlaa lool lool ndax fii moom ñu ne àll bi dañu am problème ndox lool sax yàlla xam na ni am problème ndox ndax fii fi ñuy root presque ay un kilomètre demi wala de kilomètres jigéen ñi dañuy dem di wuti ndox ku yàlla indi nag ay jullit yàlla yu baax di wut yiw teg seen tànk fii fi leen yàlla wax ñu teg ko seen tànk mooy dimbali jaam yàlla yi amul lu ne lu leen ñaanal leen yàlla guddal seen far yàlla yokk sutura yokk alal ji ba ba mu ni mu ñëwee fii mu dem ko ci yeneen commune si yeneeni dëkk ndax loolu moo ci am solo doomu aadama yàlla ni jullit yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te soo tane sa morom da koy dimbali te loolu rek mooy li am njariñ ëllëg di leen gërëm mat ngeen ndaw nag mat ngeen ndaw yu mat sëkk ndax bi ngeen ko indi ba léegi yéen seen loxo jóg ci guddeeg bëccëg yéen a def yéen ko saytu am bëggoon nañ encore leneen suñu ko mënee amit am nañ fi école arab ñoo ngi doon jàngal pare am nañ 47 élèves mais mbaar rek la nit ñi fii seen loxo jotul seen gannaaw dañuy jóg di daanu rek at mu ne ñu mbaare ko max mi lekk ko waaye suñ amoon it jullit yàlla yu mel ne yéen suñu mu ñu ko defal tax tabax mu nekk daara arab danañu gën a lool waaw man Omar Diallo la ñu wax Omar Diallo la ñu may wax maa ngi dëkk fii ci dëkk bi ngeen ñëw mooy ajal yéenu mm-hmm. ajal fii la ñu dëkkee mm-hmm. waaw ñoo ngi fii nag si commune Podor mm-hmm. waaw fii la ñu nekk ñaan yàlla mu egg ak jàmm yàlla mottali ko ak jàmm. ñu ngi leen sant di leen gërëm te lii tamit bu dee ngeen yeggee kilif yi li ngeen mot ngeen ndaw mot ngeen kilif mot ngeen yónnante ndax lii du ñëpp jub mm-hmm. am ñoo xam ne dañ leen jox rek détourne def seen poos ñu ngi ñaan na yéene bi di ngeen di mottali yal na ko yàlla jubal yal na ko mottali ñi ñaan dëkk bi tamit. mu avancé waaw ngi leen di nuyu di nuyu kilif yëpp yal na yàlla saxal diini ji saxal jam ji seen yónneent egsi na wasalaam alhamdulilah rabbil alamin euh, Nordé No Pain Sourire donc on est là à Djal donc pour euh, superviser venir voir un peu l'état des travaux de ce puits Sofiane Alhamdulillah, le puits il travaille bien, Masha'Allah. Il y a une quinzaine, voire 17 mètres sur une profondeur estimée entre 20 et 25. Donc, euh, je crois que bientôt, Inch'Allah, on aura la nappe et que Béznillah, une eau douce puisse sortir d'ici pour soulager ces, populations. En tout cas, on espère Béznillah que d'ici un mois, ça va, ça va, ces travaux vont finir. Un plus ça va finir non, en un mois, un mois et demi, fin décembre, on va dire. Voilà, Inch'Allah, il dit dans un mois et demi, normalement, ça devrait être bon. Comme ça, on passera à un autre puits, on va continuer à, à s'accompagner, je dirais. Inch'Allah, pour faire d'autres puits, pour soulager d'autres populations. Tout le monde sait que l'eau, c'est vital, donc il euh, n'y a pas besoin de parler de pertinence de ce projet. Qu'Allah accepte pour nous et pour vous, et pour en tout cas tous ceux qui ont contribué à ce projet. C'est puis Sofiane, Inch'Allah, que ça puisse être euh, le soulagement pour ces populations.